maaleykum salaam waa VFTV sama télé bi président Macky Sall madame Faye Sall madame Mbacké VFTV jigéen du mun góor la de waaw gis nga koñ bi nag mooy boo ñëwee ba quoi villa yu bees yi gis yoon bi ma di la ab am ay jaan kese man boo jël day bañ surtout bu tawee suñu soxna yi ñun suñu soxna yi ak koñ bi maire koñ ñoo def seen association bu bees jigéen ñi kese kenn jàppalu leen amul kenn ku dëkk ci koñ bi jàppale leen kenn jàppalu leen de président kenn jàppalul jigéen jigéen ñi ñoo jàppale seen bopp su ma soxna ak soxna jàmbur yu fa nekk suñu soxna yi ñoo génnee seen xaalis teg jël booy ñu raxas koñ ba mu set bu ci kilomètre naa la woon tali bi ak nu mu meloon bu njëkk ba ak nu mu mel léegi kon nag président jàppaleel jigéen yi dëkk ci koñ bi fii man Badou jaxate moo ndaje l'ami de Youssou Ndour et de Mbaye fay Faye président xam nga ma bu baax bi nga ñëw petit bons Collé ah, man maa jël micro bi waaw kon nag fu ma nekk bu ma nee jàppale jigéen ñi jàppale xoolal li xaaruñu sax sa wax parce que juste ñu dafa ne set setoo kon nag jigéen ñi koñ suñu soxla yi ñoo génnee seen xaalis kenn jàppalu leen ñun ñoo génne suñu xaalis defal koñ bi du kenn ku ñu jàppale ku nekk ci koñ bi du benn nit koo xam ne vraiment bokk na ci commune bi jàppale ñu jigéen ñi gàcce ngaalaama ci koñ bi fii kon nag. waa VFtv madame Mbacke jërëjëf gàcce ngalaama kontaan naa de na ñëpp satal rek na ñëpp satal rek. waaye sa waay loo wax ci koñ bi. set koñ bi gàcce ngalaama. gàcce ngalaama jigéenu koñ bi ñoo setal fii yëpp. kon nag président Macky Sall dégg nga ko. <laughs> waaw gàcce gis nga de président mooy lu ma lay wax rek waaye EVF télévision baa ngi koy jël gis nga koñ bi léegi nu mu satee de xool leen set na wécc wécc wécc. suñu soxna yee ko setal de yoone aéroport bi gis nga mur bi de président génnee seen xaalis teg fay xale yi gis nga gis nga xoolal xam nga man moo daj li ma waxantu de xam nga président ñi jigéen ñu koy def ñu ngi lay jàppale de ah Marème Faye Sall jërëjëf waay. ma wax rek sànc bu bees suñu soxna yi du commune bu ko def du chef de quartier bu ko def du kenn ku ko def ñun suñu soxna yi suñu jabar ñoo def seen association teg seen xaalis. boo Brioche Dor Wakam bi miir mur aéroport foofu cité yu bees yi mu ngi nii salte yaa ngi nii ñu ngi koy defar fay xale yi ñu génnee salte yi xam nga lii dafa ñaaw président xoolal commune bi dafa ko maire bi dafa ko moo ñooy ba Brioche Dor Wakam bi rek mooy cité bees yooyu mur bi waaw gàcce ngaa laa ma soxna ñoom ñoo def liggéey bii ñu ngi nii ñax yaa ngi nii gis ngeen gis ngeen ñax yi de man Badou Diakhaté moo daje maax loolu gis ngeen ne xam nga lii du yoon xoolal salte yi jaan yi dañ fiy génn lépp da ci génn léegi nag suñu jigéen suñu jabar yi

xoolal mur bi miir aéroport avion bi baa ngi noonu mur aéro gis na avion lele la mooy ci gannaaw mur aéroport bi rek boo ñëwee ba Brioche Dorée Ouakam nga ne miir aéroport bi nga jéggi pont bu ndaw bi président Macky Sall jàpp ci waay suñu jabar yee teg seen xaalis waa koñ bi ñoo teg seen xaalis def ko commune jàpp ci chef de quartier jàpp ci maire maire koñ bi jàpp ci mooy cité yu bees yi xoolal rek xoolal lii gis nga xam nga mur baa ngi nii mu ngi commencé set par rapport a fu ma leen wanoon gis nga de ah mbir mi doo xaar gouvernement da ngay liggéey gàcce ngalaama suñu jabar yi ñoo def lii de gis nga de ma lii wóorul xale yi di xoolal oto yaa ngi romb te kenn du joxe njëgu suukar de pour xale yi ñun dañoo teg suñu xaalis président Macky Sall gis nga waaw ñoo teg suñu xaalis suñu jabar yee teg suñu xaalis monsieur le président Macky Sall jàpp ci yow ma ne fay Sall suñu soxna yi commune defu ko maire defu ko chef de quartier koñ bi defu ko man Badou Diakhaté mon ndaje